bi nga xamante ne njiiti réew mi euh, moo joxe woon ndigal woo mm-hmm. Sénégalais yi à ce que ñu jubbanti dëkk bi raxas dëkk bi. Mm-hmm. d'ailleurs mu nekk euh, lu am solo. Mm-hmm. mais tamit dëppoo yi tamit suñu plan de travail annuel. ndax boo xoolee ñun artisans yi euh, niveau de l'union nationale des chambres de métiers mhm. euh, sóoraale nañ organiser ay journée d'investissement humain euh, ndax ni ñu ko waxee sànq ne soo demee ci canal 4 bi ay pneu lañ fa fekk mhm. pneu yooyu ku ne ne vulgarisateur yi Mm-hmm. waaw ñuy defar pneu yàlla def na ñooñu ñëpp itamit suñu njaboot la bokk loolu xalaatoon dañ ko mm-hmm. que ne yooyu war nañ ci mën di sensibiliser artisans yi ndax ñoo nekk ci mbedd mi di liggéey dafay am solo léeg-léeg ñu tànn ay bés yoo xamante ne dañuy jubbanti nettoyer raxas mm-hmm. donc bi ko njiitu réew mi woote yi tamit ñoom desiñ ci ginnaaw sensibiliser nañ à travers nos réseaux woo artisans yi ba que ñoom ñëpp vraiment adhéré woon nañ ci massivement mais beneen ba tamit comme ni ko Adama Fall waxee sànq rek euh, nettoyer baax na mais bañ a taqal mooy su ko defee kenn ku ci nekk ñun sénégal da ngay jàpp mbedd bi danga ko war a jàppee comme sa biir salon mhm. ndax soo toogee sa biir salon doo bëgg dara taxawaalu lu mhm. taxawaalu nga jël sànni ci mbedd bi kon mhm. soo génnee tamit sa buntu kër soo gisee benn kayit buy taxawaalu nga for sànni mais état bi tamit en retour teg les conditions nga xamante ne nii moo xam lu mu mun ti doon mu muy poubelle fixe poubelle mobile. yooyu yëpp ñu fexe installé ko ci mbedd yi. léeg-léeg damay gis ñoom poubelle yu mag yi la ñuy teg te poubelle yu mag yi mënuñ yegg ci yenn endroit yi. Mmh. yooyu tamit ñun artisans yi proposé woon nañ Sonazep mmh. euh, defaroon ay prototype ay ay poubelles yoo xamante dañ koy fixé ci poto yi ndax yooyu maa ngi ko gisee woon France laa ko gisee woon ma ñëw ñu defar ci ay prototype présenté leen ko yooyu nag lañ war a multiplier <laughs> normalement chaque 200 mètres poto war na am benn poubelle fixe boo xamante ne dañ ko fay kii nga xam ku yor sa poubelle soo ñëwee ba fu sànni ko mais tamit su ma yoree sama poubelle dox presque un kilomètre gisuma fu ma ko sànni je serais obligé ma sànni ko ci mbedd mi. Hmm. dafa yooyu tamit vraiment ñun artisans yi voilà mun nañ si jàppale état bi par rapport à ça. <coughs> ba tey